yëkkati woon ay kaddu di wax ne rek ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko njiital Pastef rek ku ko laal laal ma jamono ji nag ña nga nemmeeku rek ay plainte yoo xam ne daal na koy déposé teg ko ci ndodd Ousmane Sonko. moom Ahmed Khalifa Niass jamono ji nag daal nay déposé ñaari pelant teg ko ci ndodd Ousmane Sonko njiital Pastef loolee nag jamono ji nag ñu ngay nemmeeku nag ay plainte yu bëri di tegu ci ndodd Ousmane Sonko njiital Pastef mu mel ni sax plainte yi nga xam ne rek ñu ngi koy déposé saa bu nekk rek di ko teg ci ndodd Ousmane Sonko nag yenn ci Sénégal yi ay ree leen def plainte yi nga xam ne rek saa bu nekk nag ñu ngi koy nemmeeku ñu koy teg ci ndodd Ousmane Sonko ki nga xam ne rek moo di Ahmed Khalifa Niass daal jamono ji nag daan nay déposé ñaari pelante teg ko ci ndodd Ousmane Sonko ni ki rek ñi nga xam ne rek ñoo di waa coalition Benno Bokk Yaakaar ni ki démb rek doon amal la nga xam ne rek moo di seen ab conférence de ka nga xam ne rek moo di Ousmane Sonko beneen nga xam ne rek moo di Adji Sarr mi nga xam ne rek moo joxoñ baaraamu tuuma rek ka nga xam ne rek moo di Ousmane Sonko ak menace de mort jamono ji nag moom itam ma ngay génn rek di dànkaafu rek di wax na rek nañu ko atte nañu atte ay mbiram moom Adji Sarr jamono ji nag daa bëgg rek ñu àtte ay mbiram mu jàll ci leneen ndax jamono ji nag daa soxla li nga xam ne rek moo di àtte boo xam ne rek dox na ci digganteem ak Ousmane Sonko.